ñu ñëw ci lamb yi ñuy waxtaane am na ci yoo xam ne jot nañoo taxaw ku ci mel ni Ama Balde ak euh, mën naa ni Modou mm-hmm. euh, kii itam euh, mën naa ni Siteu ak Papa Sow mm-hmm. kii it ñu ngi ciy waxtaane doonte taxawagut di Balla Gaye 2 ak Boy Niang mm-hmm. Modou Lo roi des arènes mooy wax ci foofu waa xanaa di répéter rek parce que moodloo mbër la boo xam ne ku topp carrière am ba mu déparé ba léegi nii nga xam ne mbër kaamil la ngi noonu man li may gën a neex ci moom mooy dafay mbër boo xam ne mësul tegale ñaari defet boo xoolee carrière mësul tegale ñaari defet Modou day bëre boo ko daanee day ñëw daan ñaari combat ñu soog ko daanaat te ay defetam néew na de yaakaar naa ñetti defet la am benn bi kenn nit moo ko teg beneen bi bombardé voilà muy mbër boo xam ne mun naa ne dafa complet quoi xëy na seulement am na lu koy manqué tuuti rek ci boo leen xawee taay bi bu sutantee tuuti dina xaw di am difficulté boobu boo boo xawee su tuuti comme ji ak euh, Balla ñoom ñu ko daan dañ ko xaw a sut tuuti xaw ko ëpp doole tuuti quoi mais qualité bëre moom man du ma wax ne mënu ko quoi parce que mun na xeex mun na bëre ba pare en plus am na fit donc mbër la boo xam ne daal complet na quoi macha allah yal na ko yàlla lafal cat waaw. waaw xeex moom man dama dama ko mus a wax ne Ama duma ko conseillé loolu parce que nag tamit jàmbaar la trop mën na bëre mën na xeex am na doole am na fit mais Modou da ko dàq ci xeex bi quoi Modou moo ko dàq xeex loolu moom sawaay moom Ama sax yaakaar naa bu naxut boppam xam na ne Modou moo ko dàq xeex parce que Modou mësuma gis fii mbër bu ko taxaw ngeen taxaw ni nga ne ko kurpen taj mu daal xoolal ay combat mi yëpp nag benn combat la fi ki ñu dóor ko muy contre bombardier te boo xoolee yóbbu na bombardier ay ñetti yoon ardo Modou rek moo fi mbër boo xam ne moom ngay dóor muy def retraite corps ngay dóor muy def ay esquive di taxaw fi muy taxaw te du déplacé wu non mën na xeex trop ama lu ma koy conseil combat bi na fexee jàppante ji uti bëre lu mu am jël waaw ça ne veut nag mënul daan Modou de mën na ko daan de parce que làmba moo mën nga mën nit ki ñëw def benn erreur rek moo exploité loolu daan la waaw.